mbokk yi sëriñ Abdul Aziz Diaw di ku ñëpp ràññee ci wàllum ñaan yàlla boroom xaalima gi du laal suuf macha allah laal leen bant xam-xamam ak gëstoom ak ragal yàllaam loolooy li sabab réew mi yépp ak bitim réew jox ko bopp ay li ko wut xam-xam jaral gëstu xam-xam daf koy jaral dem fépp ci biir réew mi ak sax bitim réew daanaa leen wax lii di sedd li saxaar moom gisuma ku ko ci man Serigne Abdoul Aziz Diaw ni ma bu maa ngi feeg mbir mu yéeme sax ah waaw lan la mu ni ma xanaa li ñuy wax xorom si lan mooy njariñu xorom si mu ni ma bépp diggante bu yàqu bépp diggante bu ñagas xanaa dafa fekk amoo ci xorom si waaw secret bu doy waar la ci boole Serigne Abdoul Aziz Diaw mooy borom rus na maa xam nit ñu di ko jàpp ci gàllaaj rus na maa xam nit ñu di ko néewal doole ci xam-xam sangatu bayre moom benn la ci Afrique lépp lu jëm ci muslaay kaaraange dawal seeti Serigne Abdoul Aziz Diaw ma nga fële ca Thiès ca quartier ba ñu duppee Serigne Abdoul Aziz Diaw yow mi lijjanti ay kayit mu tëla gàllaaju kër xale bu të ay mbokkam bu lu jëm ci wàllu plante kenn mënu ko ci ci réew mi ndoxum góor gu néew kattan hémorroïde jigéen guddul yëg bànneex Serigne Abdoul Aziz Diaw mi ngi ceeg lu yéeme sax yow mi bëgg a jokkoo ak moom 77 571 87 63 wala 78 469 92 92 waxoon naa leen ni leen bu ngeen deeti ñaan yi nit seeni mbir daw leen seeti ku ragal yàlla te am xam-xam Serigne Abdoul Aziz jaw moom ma ci doy su ngeen bëggee dégg dëgg daal Serigne Abdoul Aziz Diaw ku mel ni moom ci Afrique benn la fi. jërëjëf kon euh, ñu directement sax duñu sori loolu ba léegi ay euh, Aïssata euh, bi muy wax it wax na ci wàllum Ngagne Demba Touré ndax dafa am journaliste bu ko posé question ci ñi nga xam ni dañoo demoon ñëwaat ñu laaj lan la yoon di taxawee ci ñoom Aïssata nag moom itam yëkkati na ci ay kàddu ñu fàttali leen ci waxtu wi ñuy wax sax Ngagne Demba Touré daf mel ni dañ ko arrêté dañ ko jàpp kon ñu dem déglu ay bi biñ ko laajee ci mbirum Ngagne Demba Touré lan la ci tontu ñu dellu siwaat ñii nekkoon yoon a ngi si seen kaw ndodd ndaxte nag réew mi ñu nekk réew mu yoon la réew mu yoon la du ku mu neex def lu la neex nga yaakaar ni tey ndegam ñoo ngi oyofal mbir mi rek ku mën ngaa ñëw di def lu la neex loolu mënul nekk ci Sénégal bii ñu nekk li gën a am solo ci wax bi mooy président de la république dafa woote jàmm ak sedd ci biir réew mi woote jàmm ak sedd nag du du méngowul ak lu waay neex def déedéet loolu senegal du mës a nekk réew boobu. voilà mi ngi noonu Assane ba léegi euh, lii bokk na ci kàddu yoo xam ne maa ngi koy wax Modou léegi ci suuf nee naa ko affaire bi daal la ma ca doon dégg dégguma ko ca ndax buñ ko posé question ni ko diw mi dem ñu di ñëwaat ak yooyu euh, daal lam ca waxee mooy ala kulli xaal ñi demoon te yoon nekk seen ndodd bu ñëwee daal yoon du leen may ñu ne ci réew mi di def lu leen neex ak di wax lu leen neex bi ñu xëyee nag lañ jégg ngañ Demba Touré nañ ko. waa ngañ de. yëba mu sant yàlla bu baax a baax a baax hmm. waaw si téye gi ñu ko téye moo xam dañ koy entendre wax ak moom bàyyi ko mu ñibbi moo xam dafay amee fan lu mu mën a doon daal war naa sant yàlla bu baax a baax ndax at ma nga xamante ni Sénégal yëpp dañoo taxawoon daal ni lii am ci réew mi si insistis dañ koy régler moo xam si xel la moo xam si xalaat la moo xam si doole la waaye lu mu si man di doon danañ ànd ki ko def nekk ci réew mi xeex ak moom ba am ci ndam jamono jooju ñu ni Ngagne Demba Touré daw na. daw waaw ñu ni lu tax mu daw ñu ne dañ ko pelante ni ko kaay mu daw. waaw wala dañ ko woolu si yoon mu daw. Mhm. ndax lan da doon bañ a dem kaso moo tax mu daw. kooku kon bu fekkoon dafa daw ba mbir mi jeex takk te jàpp ñu ko kaso loolu way woo way la woo xamante ni après histoire buñ demee bay wax lii histoire bi ko indi ñu ne ko déet yow moom danaa dégg ñu ko yow sa maam moom daa dawoon <laughs> sa maam daa dawoon loolu ngay dégg bu ko defee maam mi ak honneur bu mu a am. bu doonoon ministre de la séance ak def fi lu kenn mës ta def mais daw bi day des si maamam. ah dañ naan ko ba mu méttee da dawoon. moom sa maam dafa dawoon moom. sa maam dawoon boobaa dañ naan yow sa maam daa dawoon jamono yooya. Hmm. moo tax kon maam yi nañuy résister maam ñun nañuy résister di taxaw di moytunoo suñu sët yi. <laughs> ah kon ngañ maam la ëllëg. maam la ëllëg ab paa. paa bu màggat bu fi jógee ñu ne ko yow sa maam daa dawoon dem Mali kon daw bi nañ koy xool mais nag ginnaaw yàlla suturaal na ko ba mu ñëw ñu jàpp ko kon buñu ne at mañ doon jàpp nit ña waa Pastef ña jàppoon nañ sa maam. dañ naan sa ci la bokk. waaw loolu baax na kon ndax lii doon na loo xamante ni honneur la après ëllëg. d'accord waaw kon nag euh, bu fekkee yoon yoon a ko woolu woon mu daw yoon wi ko woolu woon mi ngi fi. bu ñëwee yoon dinaa ko kaay lu tax ñu woola nga daw mu expliqué ñu waxtaan bu fekkee yoon da ko bëggoon a téye si ay demande explication mu téye ko bu fekkee ni yoon da ko am lu mu ko bëggoon a laaj it mu laaj ko ko rek en tout cas yal na si jàmm mujj. yàlla jàmm joxe hélas. yàlla jàmm jàmm moom moo ci mujj Assane. dama ne yàlla na si mujj laa mujj gu si kay ndax maa ak moom. ma nga kan ma nga gaay. waaw xam nga man ngañ yëgu moon lu mu def man ba léegi maa ngi laaj ngañ lu mu defoon. dañ dafa dañ ko woon woon mu daw. waaw lu mu defoon. lu mu defoon réew mi kenn def ko naa maa wax lu nit def. <laughs> waaw moo tax may laaj xaw ma. <laughs> mënoo laaj fii moom mënoo fi laaj kenn def bañ lii la def Sénégal gépp ñaata mille nangam personne da ngaa mën a xam lu nit def. am na ci koo xam ne ndeysaan ku daw yaram nee na moom këf kaa ci ko woon xaw ma ndax yaa ma ko. këf kan la yaa ma ko envoyé. ah man naa am de déglu ma. waaw yow doo déglu dangay ngay sànni rek <laughs> del déglu nag <laughs> alaaji ginnaaw bi ko journaliste bi laaj démb ci ngañ démb tur ak yooyu daal wala sax ci ñi demoon di ñëwaat. mu ni daal yoonam seeni loos. waaye man la ma ca déggee woon nag mooy mi ngi soon loos waaye bu ñu ñëwee bu kenn ruubee nañ toog bu ñu xëyee tey nga dégg ñi ni arrêté nañ nga jëmbat. xam nga Assane. <laughs> Hmm. Eh, ci sunu maam yi am na ñoo xam ne reculé nañ dem ci yeneen dëkk mais du xas ah, dañ koy nettali. mais da wowuñu leen. Eh, ci tubaab bi kii la nga daal di reculer dem ci yeneen dëkk ndax ab taxawaay boo xamante ni moom. am na waa am na. loolu am na fi ay kilifa yoo xam ne bi leen bu ñu xasee dañoo tuxu loolu loolu ak daaw ah? hmm? ak daaw bokkut non benn la li nga li nga wax na lépp lenn la day dem ci yeneen dëkk ba après nga loolu dafa dafa dafa am loolu ça n'a ak euh, daw hmm. nga jëm ba dafa ñëw expliquer hmm. askan wi li taxoon mu génn parce que mënuñu nangu ñu teewoon ñëpp ñi nga xam ni ñoo doon doxal parti bi. Mm-hmm. du dëkk. waaw mm-hmm. am nañu ay section moo yore woon jeunes yi defe naa. Mm-hmm. jiite woon yenn yi am il faut ñu am noo xamante bi noonu la ñuy doxee. parti bi jàll na parrainage c'est parce que dafa am ñenn ñoo xam ne ñoo jiite yëf yi. ñoom ñoo fi nekk yooyu yëpp expliqué na ko sax. Euh, ñoo xamante ni xam nañ yëf yi parce que tey jii liggaay yi bëggoon réussir ñu ko ñenn kenn nag ci ngañ jëmbatu rek ak ñu mel ni moom bokk nañ ci li tax li état bëggoon réussir ko. parce que permettre nañ xam yëf yeeg procédure yeeg li ñuy def ay ñoom Amadou Ba ak ñooñu ñëpp fexe nañ def de telle sorte que kii parce que boo ngañ peut-être position bi mu nekkoon. permettre na ko mu jéem a fexe pour exiler pour reculer. pour mieux sauter. si ngañ nag bu ñëwaatee ci dëkk bi tamit bon ñu ne woolu nañ ko. loolu man wax dëgg yàlla bettu ma. parce que dama jàpp ni am réew tamit nii lay doxee parce que bul fàtte ni Ngagne Demba dafa fiy jóge dem ci réew mu ñuy wax Mali. Hmm. di suñuy dëkkandoo. ne sa reste bu fekkee ne réew mu normal la bu yëf yi di dox nga exilé woon boo ñëwee war nañ la déglu jéem a xool ba xam. Hmm. loolu loolu war na mën a ne. si mais man jàpp naa ne Ngagne Demba Touré li ko indi ci dëkk bi lu leer la. Hmm. parce koo xam ne bi muy dem yëgoon na li war a xew. amoon na ay xibaar. daal dem kon bu demee bay dellusi xam na loo xamante am na ay garante bi muy ñëw am na ay garanti xam na loo xamante ni peut-être xamuñu ko. kon jàpp gi luy sabab. waaw donc jàpp gi amul problème jàpp gi bon gars yi dinañ ne jàpp mais bon jàpp naa ni bu demee dinañ ko déglu mais gëm naa ni fi situation bi toll nii ñuy libeere booy yëpp hmm. ñu leen di bàyyi. Hmm. loolu nga xamante ni ñëpp ñu ngi koy gis. Hmm. ñuy xalaat naan Ousmane Sonko kii a ngi loolu luy xajamal mbir moomu gëwma état bi di ko def. Mhm. donc lii ñuy def nii pour man benn procédure la boo xamante ni bi mënut a ñàkk. il faut mu am. Mhm. donc bu ñu dégg teel rek na damm na. nañu xool ba xam hmm, fu yëf yi di mujj mais man jàpp naa ne daal war sa nekk leen loo xamante ni bi lu kii la. mi ngi noonu euh, Abdou Taw ak ma doon yóbbante waale nee na ñu bañ a fàtte waale jóob hmm? Moussa Diop nee na ñu bañ a fàtte Moussa Diop mi ngi ci biir te moom mooy détenu politique la. Moussa Diop waaw. waaw. Moussa du suñu politique. <laughs> Moussa Diop defe naa dafa am. Moussa du suñu politique. waaw léegi dañ maa yóbbante rek tomba ma yóbbante rek nee na dañuy bañ a fàtte Moussa Aliou Ngoye ko dugal génn. Ah? Aliou Ngoye ko yow penante la wax nii. waaw mais est du bokkul ci yëf rek. Hmm? est-ce bokkul ci kii rek te candidat la woon. waaw candidat la waaye am ak Aliou la de. voilà.